écoute sur jërëjëf euh, jaajëf Abdoulaye Diop euh, merci beaucoup Yacine Pouy jërë ngeen jëf auditeurs yeeg internet yi nga xam ni ñu ngi ñuy euh, bàyyi xel maa ngi leen di kontaane bu baax a baax Abdoulaye Diop yàlla na yàgg yeewu suba teel taxaw fi na am ay démb ci guddi dama la doon ñuy xeex nga yooyu nit ku bëgg problème la vraiment boo géntee xeex ak nit koo xam ne nitu jàmm la génnal nga wut lu weex nga saraxe ko te bañ ko koo yeggee Abdoulaye Diop bërki démb gisoo ma ci mbedd bi ma nekk fii daw xale yëpp naan ma lan moo tax taxawoo ma leen xanaa xamoo ngeen am liggéey am soxna ak doom day wàññi fit man sama fit bi loolu ko ko wàññi daw rek léegi daw rek yàlla na jàmm yàgg di kontaane mm, euh, waa meew l'écran bu baax a baax a baax CCPS maa ngi leen di béggee bu baax agro safi maa ngi leen di kontaane yaa safir ak euh, parfum boobu nga xam ni mooy parfum tolka maa ngi leen di kontaane CEDUEF transfert international boobu nga xam tabarkàlla moo gën waaye Kabirex moom laa woowee supermarché bi nga xam ni lépp lu jëm ci wàllu électroménager yi moom moo ci mën partenaires yi jërë ngeen jëf ci kóolute gi ak confiance gi nga xam ne moom ngeen am si seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg euh, Mamadou Ndoye Bane ak passe partout Ndiaye ba tey ma nga congé mhm. passe maa ngi lay siyaar delloo maa ngi lay bu baax a baax sama waaj. Mhm. maa ngi nuyu inspecteur. saa yu taay moom taay dafa soxor. non dafa naqari dara. si saa yu taay taay dafa soxor. dafa naqari dara. non c'est ça. c'est oh. taay taay taay taay bàyyiwoo loxo de. non non non non. c'est ba. dañoo bu bees. Ah, fa ngay tay foofu ngay. kii rajo bi. fa lay fa lay gort. Mhm. da ngay indi ay client ba. indi ay client kay. juste <laughs> nee na ngeen indi ay <laughs> client waaw fa laa ne. Mhm. impact. fa lay gont. future entreprise. waaw eh, future industrie. future industrie future industrie c'est bien. ñaan ñëpp jàmm rek. yàlla na yàlla def jàmm mais ban mille yu mel ni Youssou mille yu mel ni Youssou bu amoon ci réew mi ci seize millions de sénégalais yi. kenn dootul chômer. xam nga gars yi ak waa ji du benn. koo xam ne heure bu xëyee ba pare teg ay acte nag. Youssou tuuti lay wax di jëf lu bari. gaay yi ak waa ji du benn. moom ñuy waxtaan mën ma saay affaire bi jëf lu bari wax tuuti. mooy doxal am réew. waaye ay waxi kese doxalum réew mooy la ma la waxoon barki démb rek. créer sa émission woo ay nit ñu yàq ay deru nit ñu baax ñoo xam ne ñoo la gën fuuf heure bu ñu xëyee ñi ngi xool lu senegal jëmee kanam. ñooñu ngir bëgg a yàq seen seen seen seen der du sotti aba ah dañoo toll ci ah, jamono joo xam ne àdduna bi dafa metti fi mu ne nii li ñuy wax mooy teg paa jëm kanam dëgg la xam nga ndaanaan kenn mënu koo suul mooy li wolof yi ñaan yàlla du fay wax bàyyi jëf bàyyi jëf booy dëggantaan bëgg na jëf booy dëggantaan dama la ñaan benn morceau mhm. jaloore jaloore tey moom xam naa ci Youssou laay yendu moom ah, tey moom Youssou Yacine te ci yuus laay yendu euh, way yam wayoon yu duus ya mu wayoon euh, way ko Mame Baye Niass way ko ñoom Cheikh Fall ak ñooñu tey xoolal ma ko rek xoolal ma yooyu liste daf ci am benn passage bu ma neex mhm. mu ne réew mhm. réew mu nekk am na way mhm. fexeel ba booy dund boo fa sosoo nga bokk ci way wi bokk ci way wa ndax bokk ci way wa day tax way wa dëgg la de kenn du Youssou mango tarkal moom laay wax nii boo toogee moom trente minutes Yacine boo amee xel di xalaat di capter mën na laa dimbali pour trente ans boo toogee ak Youssou 30 ci Youssou doo laaj an sa yaay doo laaj an sa papa doo laaj an seen waa kër noo def non non liggéey la waxtaan. yàlla na yàgg. képp ku ko bañ da ngaa jonjowul ak moom. wallaay wallaay wallaay non non kenn bañu ko. non non dañ ko xamul. waaye bi <laughs> waaw mooy mooy mooy ko xamee buñ ko xamee rek bëgg ko. mooy li Pape Cheikh ah, mm-hmm. soo ko jo soo ko jonjoo moom. Mm-hmm. ku xamul la xamul. Mm-hmm. ko xam bëgg ko. gis nga man xalaas de man soldaar laa. <laughs> cent cinquante Youssou Ndour segam Sénégal du dem. ñu ne dix ngay wax dix maanaam dix rek. non cent moo gën. dix xam nga xam nga bu coow bare. bu coow bare ñu ne anamu. ndax du wax. waaw du wax. waaw fu mu nekk. waaw mi ngi waaw lu muy def. waaw day jékki-jékki génn wane lu mu def. yéen fee génn demoon da ngeen fay doog a def dem naa fa deux mille dix huit. lii nii nii nii. kon. waaw kon. waa kon baan nañu woo Youssou euh, ci euh, ci appel bi mu dugg ñoo kon ñu xalaas ko nañ dem ci xalaas kii. ayca léegi waaw ba tey mën na nekk eh eh baan daa ñu dem ñu ñaanal suñu benn kii njallu njallu njallu waaw fii la doon toog ci rajo bi ñu koy invité thème de la semaine wareef et tout dafa gaañu woon heure bii daaw mhm. démb la woon anniversaire dañ ko fàtte mhm. dañ ko fàtte njallu njaay ñu koy ñaanal ñi déglu RFM xam nañ ko baax a baax ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla mhm. xaare àjjana ak di ñaanal doom ju fi bàyyi tamit bu batoor moom it yàlla jàppal ci ba nga xam ne daal euh, xéwal yi dina gën a yokk ci moom bu baax a baax a baax a baax ah, aba aba ñuy ñaanal ñëpp jàmm rek aba Youssou moom yàlla na ci ëppale moom yàlla na jàmmam yàgg ndax bu amee ñëpp am ko amiin ay responsable nga yor ci lu mat mille am embauché leen bokk ñook ñi nekk ci usine ba de usine ba deux la jëm nga yor ci mille embauché leen ku ci nekk yor sa am kër goo yor di dimbali waa kër ga ñooñu ku ci nekk ña dimbali am na ñeneen ñuy dimbali ci la fay seen jànq ci la fay luyaas ci la jënd euh, euh, ci supermarché yi bu weer de mais quand même kooku économie bi ni koy yokkee ci réew mi di fay ay nit yow yaa ngi gis ah, te yow lay fay ah, entreprise ma sax ñaari nit la waa ji yor wax leen li ngeen yor kii nee na wujj yaay ah, waa waa xalaat ci Omar Pène la. baan la nga yor zone ak Ablaye doo ko wax. yoruma dara. yàlla baax na eh. nañ sant Youssou daal. waaw yal na yàlla may ñetti abaa rek. wallaahi nañ sant Youssou léegi léegi non ay waay ay ay waay lii mbaa jàmm la <laughs> waay yow. ayca baan kii nee na sama wujj yaay deux. fi mu nekkoon mooy démb waaw. Mhm. li ko wujj yaay jee ko woo nga ni ma. yónnee koy garab boo may tuul mu ngi ci yoon wi di ñëw waa ji waa ji kay waa ji waa ji est-ce ay bagaa am fi mu nii mu ngi wëri avocat ndax ndaw su ko dàq fa ñuy liggéey gisoo waaj ji nii moo ngi nii déedéet dégg hmm. ko nii i départ wuj sa yaay yónnee lay garab rek nga nga nga déglul bi moom woo mi ne ma dem naa seen jolo seetal ba ngeen doom ji kooku ma ne ba pare mu ne gën naa la sarax set par dal sukkur bi sukkur bi ak soo pousse benn raq ba yow sa bi maa ngi nii yóbbu sa sa sa mat bu jigéen. ba mu ko sama yaay su ma amee non su ma amee yow lay wax nii ma ne ko ah ñoo ko dëggandoor de ma ne ko man yónnu moo ko man ma gën a ma amee man moom su ma amee ko man sama yaay yow yaa xale yow yaa ko yónnu su ma amee ne man yónnu ma ko su moom lu si yoonam moom lu tax mu yem ci sëriñ du la seetal waa di la di la gën a sarax xam nga. man sama yaay non non garaawul xam naa lu mu yéene doom bu góor bi man xam naa ma xam naa loolu ma yéene quoi man sama yaay bu ko wax dara garaawul xam naa un mois mère bi woowaat ma na benn garab bu mu la envoyé quoi maa la koy poste foofu xam nga na la woo su ma rek bu ko mi ne waa yow fi nga dëkk laa bëgg nga jox ma adresse bi affaire yooyu kër gi ma ne jox adresse kër gi trois cent affaire bi ñëw garab bi ñëw sama kër léegi moo jël garab bi ubbi ko xam nga gis ay téere arkaan afriyo noonu mi na ma garab bi da nga war a sangu man ma toog xalaat ma ne waa lu tax maire bi moom envoyé garab bi directement doomu bu góor bi lu tax mu ñëw lu tax mu envoyé ma ko ci man ma toog xalaat ma ah, lii moom yéeme na de ma woo sama yaay ma na ko ah diw de envoyé na ma garab pour ma sangu ko ma ne ko man nga xam ne yow sama yow sama yaay sama joxe garab sax pour ma sangu ko sax problème la. surtout maa nekk koo xam ne du sama yaay du sama dara mu dem seetal ma si sëriñ mu dem gën ma ay sarax te man sant ma ko ba pare mu envoyé may garab en plus mu ne ma sàng ko ma ne mère man sama yaay dama lu si sëriñ nga xool nga ma man yan façon garab la quoi ak yan sarax la ma gënal léegi sama yaay bu ma demee xool sëriñ ñu ne la bu ma demee sëriñ di seetal fu ma dem sëriñ ñu ne ko yow dañu sa doom bi de liggéey nii ko ñu ne sa doom bi dam ku muy génn ñu ne ko waa ñu ne ko kooku de fekk fan ñoom ñaar lañ ñu bàyyante su ma wax ma ko ma ne ko non loolu mun lakk si man ma jëlal garab gaaw nga sànni ko nga génne ko ci kër gi nga sànni ko ci mbalit bi man lu may jël garab di ko génne ko sànni ci mbalit bi dama kaa mbalit bi dama kaa jël juste sànni ko ci mbalit bi ah. ma xëy dem liggéey ah ak sama copine bi fu ñuy liggéey ma jékki-jékki-jékki rek sama copine bi mu mel ni xool mu mel ni lu ñu lu ñu jëfral commencé ñu ma maa moom ñu ba ñu commencé xuloo léegi mu dàq ma gën a sama liggéey bëggatuma la fekk seeti léegi bu ma ñibbee kër ga mu ñëw mu ñëw ma mu mu ma kër ga man man kër gi tam ci war génn ma ne daal di ci maa ngi nii di dem jël avocat te ci ma da nga génn ci kër gi yaay ma ne ah, kii de sama diggante maa moom jeex na fu loolu doon liggéey sax daq na ma fa ngi nii mais fu ma gën ci gi. ndax doy ban sama jàppale damay trox ndax sama yaay sama yaay amul kenn ku ko jàppale foofu senegal sama yaay jëlee naa appartement appartement bi maa koy fay maay fay courant ndox rafetlement yi loolu maa fay. maa ngi nii daq na ma fu muy liggéey léegi man fa laay fanaan man su ma génnee si dëkk bi fan laay jëm fan laay jëm fan laay fanaan liggéeyuma amul fu ma dëkk. ak dëkk bi léegi nu mu mel ni ak coronavirus bi léegi amatul te man su ma dem ba génn kër gi ndax sama gi sama xaalis dugg na ci ndax gis nga tubaab soo leen dem ba marié yaay génn kër gi ku góor ki may perte ku jën ki mooy toog fii si kër gi man su ma génnee si gi fa jëm man doy waar su ma liggéeyal man fa laay jëm torox naa sama yaay sama yaay duñu lekkati sama sama yaay man sama yaay moo sama yaay mi ngi Sénégal am naa quatre raq yi am naa kan raq yi foofu Sénégal man sama raq yi foofu yëpp man man maa ma yaay amul kenn ku koy jàppale Sénégal ma tey ma dem ba génn ci kër gi ko fay appartement bi courant ndox dafa tey maa bi sama sama sama raq yi nekk foofu kan moo leen fayal jox ñuy lekk te man ci man la ñuy yaakaar yàquluñ keneen ku dul man man Sénégal xaw ma kan laa mën a woo foofu pour mu sewe ma ndaban instant jaaxle naa jaaxle naa fi Europe fii Europe nii fii Sénégalais bëri nañ fi mais kenn du jàppale sa morom kenn ku nekk en difficulté kenn du la xool kenn du la lijjanti instant man su ma génnoon fan laa jëm amul fenn fu may dem fële xaw ma fi kenn apart part sama rakk bu góor bi te sama raq bu góor bi sama yaayam tas na sama say ak ku ma nekkaloon maa ngi nii maa ngi nii. ndeysaan li garaaw na de. abaa dégg yaayam li ko yaayam wax. Mhm. moo laa bëgg jox nga déglu ko tuuti déglu yaay ji. ñoon daal bul génn kër ga tool nga xaar ma nga may ma bul génn kër ga tool nga xaar ma nga muñ nga may ma kii def def la bul génn kër gi. dafa def pour sa xol jeex pour nga takk sa bagaas nga génn sa dem sa yoon te boo ko commencé ne foo dem da ngay génn liggéey boo dem def benn fan ñaari fan nga génn bul génn tool nga xaar. moom yéen a ma ko lu bon li loolu laa yéene. bés ni ki tey nag. dafa attention bu baax a baax na ma nga bàyyi <laughs> mais amal limite amal fooy mag <laughs> man saay maa la ko wax soo ko nangee bisimilah boo ko nangoon man ma bàyyi la aduna àllaxira amal fooy mag <laughs> parce que man doo ma def lu bon ba pare ma togg di fooyoo di rey yow du ma ko def yamal amal foo yem ak moom sarkal nag amal fu nga yem ak moom bu foonante see foog rek moom jeex na nga dem si mu dem yoonam mais bu ma la xamal dara sa dara moom mu ko xamati. ndax dafa def loo xam ne ne foo dugg mu yàq loo dugg mu yàq ba luggum ci affaire oto bi man soo mënoon ñëw sax moom nga ñëw sax moom a gënal dafa la def loo xam ne ne foo dugg mu yàqu su ma sañoon sax boo mën a ñëw sax nga ñëw wala nga xaar ma bu mën a amee ay garab dama yónnee nga sangu nga jël sa ennemi def ko def ko sa sa sa sa sa confidence sa sa sa sa sa vie privée sa lépp nga di ko wax baaxul santul yàlla man nit rek laa xam moo tax départ bu may naan ma fas facc sa kanam facc sa na waaye lu ma def lii dina ko regretté lu ma def lii dootu ko def ci biir àdduna soo paree ci moom wallahi dina xam garab yi ma lay yónnee yónnee noonu ci poste bi bu ko laal dara jëlee nga san yëpp ci biir cabinet bi. man daal lu ma lay wax leen daal mooy moytu waaw Pape nee naa dem utal la garab pour mu sangal nu mu gën a gaaw ndax li ñu def ci yow mu deñ ngir loolu du baax ko nag foog mu tuyoon Tamba pour demaat ci programme yi programme yëpp Pape leeral na ko nañ def na man ma mës a def bët may xool bët ma lay xool moom lay xool. musa dañ ci sëriñ ma doomu jàmbur yi lu bon yàlla su ma ko defee yàlla këpp sama koog sama koog njaboot du ma ko musa moom nag jël naa yàlla yonte ba def ko sama diggante ak moom gis naa ko yàlla yàlla mi ma teg nattu bi nag yàlla ko suñu borom teg ci jàmm salaam am ne na man la amal affaire bi ci naar kam sangay moom dinaa dem paa bi ut la defar la ay sang ñu toj liggéey bu ne yëpp bu neexee bu la woy bokk barke yàlla boo ko jël du ma ko baal bolkel numéro bu ma sa ci bu ma sa sa dara encore. nee naa la ba lay bu ko pàkk ba lay sa waay koy daas toujours wax naa la ko ba léegi bàyyi ci xel loolu toujours ki la jege moo lay def lu bon nit ku du mën a tëb tëb rek def la fu fu mu jaar pour mun laa def lu bon. kon nag bu leen mës a dëkk ci àdduna yow dèjà dëkku leen liy am kon bu leen dëkkee nooy nay mel bu leen mës dëkk ci àdduna te mës a wóorul kenn ñoom ñëpp def leen ci benn saak. xalaas ah. nga dañoo changé ba voix yaay ji. Hmm. changé bi voix xale bu góor bi. Hmm. Euh, am na koy laajte version tante ji mais <laughs> <laughs> tante ji xamul nii ñii ñëw nañ sax ci rajo film nii mm. dañoo jaaxle di wut ku leen dimbali waaye mm. day wut ku ko dimbali sinon euh, liggéeyam dina ko ñàkk mm. ndaw sa dina ko génne te moom ndaw si ñoo cotisé woon jënd seen appartement dëkk fa di bokk seen liggéey mun muy dem di liggéey ci entreprise ndaw si ndaw sa dàq na ko ca kër ga dàq na ko ca entreprise ba ba mu jotee garab ya mm-hmm. ak ya ak saraxi daal yeen ko saraxeloo ak ñoom seen mi ngi noonu parce que am na ay sénégalais yu déglu yoo xam ne ña ngoon bitim réew di liggéey seen liggéey dañoo xëy suba dañoo xëy suba rek takk seen i ñëw Sénégal na benn boo xam ne mu ngi tudd Chérif la xaw hmm? mais ba loolu bari na fi de. passe-partout boo demee Europe la ilaha illallah. bari na fi de. boo demee Europe ñi tàggaloo seen ñi tàggalikoo seen. sago demaatee. waaw boo demee ñi tàggal ko seen sago ak a bari. Mm-hmm. Mm-hmm. mbedd mi ngay romb. te la ilaha illallah. non non c'est compliqué am na ñoo xam ni. Mm-hmm. mënatuñu da ngay xool sénégalais sa moromu sénégalais nga xam ne kii mënatul ñëw. mënatul dellu si. non non c'est vrai lu mën a xew mënul ñëwaat. c'est ça am na su ñoo xam ne jàpp nañ ne derañ bu yàgg fekk ñu ngi dund ña nga fa nekk. ñii ñii def def la. ñii ñoo ko def seen bopp. ñii def ñoom dañoo nekkoon Europe muy neex ñuy noos. war ginnaaw nit ñi ñuy noos topp noos gi ba noos gi noosee leen dëgg la am ñoo xam ne seen mbokk yi ne fii ñoo leen noose. Mhm. ngay yëgat jël sa xaalis ji ko yónnee say mbokk pour ñu tabaxal la kër nga ñëw vérifier gis ni tabaxul la dara nga dof. ñu bari seen i mbokk leen dof loo ah. la ñii seen i jabar leen dofloo ñii seen yaay la ñii seen papa ñii seen i ndijaay ñun waa àll bi ñu ci bari seen ndijaay leen dofloo. da nga yor xaalis ëllëg sa baay du ëllëg ko jox ko sa baay mu tabaxal la nga jox ko sa ndijaay sa ndijaay takki ko jabar lekk xaalis ba Mm-hmm. nga porté ko plainte la soo ko porté plainte mais ban surtout soxna yi da nga fii bàyyi soxna mu nekk ci mm, naka sudul noonu mm-hmm. nga jël ko yóbbu ko mu ne mm-hmm. la fa ñukk dem ci leneen yooyu day yóbbu xel waaw day yóbbu xel yooyu day yóbbu surtout soxna yi sooy raag nañ ci démb raag bu metti maa ngi ci la non non abaa wax mu man man bu ñu ma santee liggéey ma jox ko baan tamit yow waa ji man woo na ma euh, am soxla yaa ngi mhm. ma dégg abaa. yow rek yow rek yow laa dégg waa ji woon na ma am soxla. mu luy soxla nee na ma dafa am soxna. waaw soxnaam da koy mooy. waaw mu dem ba jàpp ko. waaw soxla ko ci dimbali. ku ci naka ku ko dimbali ci waaw ñaan parce am nañ njaboot. kan kan yaakaar mu ni. yoo mu yegg. kan la ci yaakaar yow. waaw loolu man damaa comprendre am soxna mu koy mooy mu soxla ci. dafa am jëkkër dafa man soxnaam moo mooy mooy maanaam am benn far. waaw taximaan jàpp ah, taximaan mooy mu jàpp leen tak jàpp na leen ci biir taxi bi ñu ñu euh, ñu ciy nekk jàpp na leen ci corniche bi ñu ko fay nekkal mu ñëw fii woo passeport ni ko neel ndooy baan damaa jàppale bëgg mu jàppale mu wutal ma ñaan pour sama jabar jii daf may moy mhm. paa wax ko paas paas mën ko man xawma loolu man loolu mënuma ci gis nee na moom gis na ni jawar ji nobutu ko taximaan ba la ndox man ko li gën a nooy te neex te may la jàmm mooy nga yow du conseil yow yow du yow du ñaan boo ko jox conseil ko jox conseil laa ko jox loo ko conseil bi ma ko dama ne ko li gën a nooy te neex te noppal la te ndaw si ba ko taximaan ba <laughs> ba ko tasimaan ba man ko soo ko soo demee ci sëriñ mu ñaanal la abaa di ma ree man yow comme cadien. cadien doon ah, cadien. soriwu ma ko de soriwu ma ko de. man <laughs> doo dafa man kii doo ko fexe wax lu fi. xam ki am ko déedéet su demee ci sëriñ. koro koro ma ko mu ñaanal ko. ndaw sa àndaat ak moom. ndaw sa la muy ànd ak moom ànd ceeg sa góom ndaw sa taximaan wala nopp. na ko baag taximaan bi te moom wuti ku ko nopp. mais ban am nañ ay doom. am nañ ay doom kon doom yi ku lay wóor doomi taximaan. <laughs> président de la république président jërëjëf jërëjëf kay jërëjëf kay. ah dafa génn léegi nii nag dafa génn. ah waaye moom ci dëgg-dëgg xanaa du toog. ah génn na léegi nii de xam naa nag sori xam naa nag bu soreet du lool lool. ah ci dëgg-dëgg léegi nag bu ñëwee ne ko. amati nañ mbégte contentement bu rëy rëy. Mhm, mhm. li may faral di wax a la Sénégal benn bopp la koy mënu ko xar jaar. Mhm, xoolal barki démb. waa kër jàngu bi li ñu def. wér na. xoolal waa kër abbé li ñu def. xool la jeunesse chrétienne te dëgg dëgg def ci rafet ci jëf. dajale seen xéewal. dajale seen xaalis. ah te dëgg-dëgg jënd ko ay ndogu di ko jox musulman yi. waaw jënd ndogu ndeysaan loolu moom ñi ngi koy gis loolu rafet na loolu ci réew mi. ndeysaan te dëgg-dëgg bi mu ko a damaa jooy. Mhm, mhm. sama yaram a taw. Mhm, lii ku mu daw sa yaram rek ci dëgg-dëgg doon nit. ndeysaan billaay wallaay. lii ku mu daw sa yaram ci dëgg xamal ne yow yorooy dara. bilaay wér am rongoñ bilaay wér na wér na wér na wér na man bi ma ko xoolee bi ma jooyee ci dëgg-dëgg Cheikh Mbaye daa jooy Khalifa Mbaye jooy wér na wér na wér na ah, wér na dëgg dëgg jom moodu bub man mhm. béykat bi ñëpp a jooy ndax sama yaram dafa taw bilaay wallaay bilaay bilaay léegi agence euh, loolu maanaam euh, lan lan nga bëgg président def ko ci maanaam da ngaa bëgg mu ah, yónni la fa jox la enveloppe loolu loolu ci dëgg-dëgg yegg gu ma fa doom hmm. yàkkamti nga loolu ba ma dugg ci affaire enveloppe xam naa enveloppe ci dëgg-dëgg doom tiital na la. <laughs> surtout bu kàkki bu ngand moom ñuy bind président de la république kaw. waaw bi ñuy bind présidence. waaw bu bees bi. Mm-hmm. ah ci dëgg-dëgg doom boobu boobu doom boobu tiital na lool. kàkki boobu kay ñëpp a ngi koy war tuwaar kàlla. waaw ci dëgg-dëgg li ñu koy tudd bari na lool. Ah. rawatina rawatina su ma defee appel téléphonique. man kay dama xalaatoon comme président maa ngi woon dégg euh, léegi nii rek xam nga fi mu ne nii dama doon nelaw moo ma waaw léegi nii rek maa ngi doon dégg avant muy génn mu doon wax naan daal bëgg naa ay ndaw yu muy yónni. ci sunu mbokki catholique yooyu nga xam ne dañuy defar ndogu di ko jox jullit yi. ah ci dëgg-dëgg nee ko màggal naa waaye tey laa gën a mën a dem yónneel. ah am nañ bëgg na faa yónnee ay xéwal de xaw ma nag. ndax gardien de la constitution ku mu yónni nga a dem. ba xam pare pare nga pour dem kon. ah ca dëgg-dëgg nee naa leen musuma ñàkk bañ a pare ndax mooy gardien de la constitution. Ah. te je suis le président communicateur traditionnel de ah kon baax na bu ñëwee léegi dinaa ni ko asmaasur nee na pare na. pour léegi boo ko joxee ah bu doon ko jox. waaw ah, baax na baax na moom kay am ñoom garme ak doon nañ ñëw waaye bàyyil man danaa xool nu ma def ñoom. déedéet ci dëgg-dëgg léegi laa dem jóge ci daw yi damaa daw yi juwoon astoor. déedéet léegi laa jóge fii damaa daw ba damaa daw ba géej daal di fay ba goro ñëwaat. déet waay. maa ngi woon ci booru corniche bi ci dëgg-dëgg jógee Mermoz. di tàngal yaram bi romb université sànq rek ci dëgg-dëgg romb foofu ci buntu ci buntu ci buntu RFM bi. jërëjëf jërëjëf Mbaye jërëjëf Mbaye. bu ñëwee ne ko rafet naa ko trop nekk